ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll moom la rek. Cheikh moom grand serigne Dakar soxna Serif Ba Aydara moom Cheikh Mamed Fadal wala du Mamed Fadal ak Maamin tubaarkàlla seen njaboot gi ak mbokk yi tribune bi soxna Astu Mbakke mu Serigne Cheikh Gaynde Fatma. ak njaboot gi soxna Astou Boury mbakke moom sëñ Cheikh Faty Fall mu Cheikh dul Bachir ak njaboot gi seen naa Kange joob mu Alaaji Ahmed Diop mi nga xam ni sëtum Maduma Xuréeja la te Maduma Xuréeja ku ne xam ne digganteem ak sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moo jur ma mu jur sëriñ Cheikh eh, eh, eh, Ibra noo ngi déglu noo ngi dégg gaa yaa ngi welweli rek waaw kiris ba dugg na Touba waaye Touba loolu du fa dugg bu fa duggee day génn te du lor kenn yabu nañ nag ci mbojum sëriñ Touba lool ba lu xew gaa yi fëkk rajo yi naaw falaan rek song Touba affaire baa nga Touba affaire baa nga Touba affaire nekkul Touba sëñ Bamba nekk Touba ki nekk Touba nañ ko wax affaire nekkul Touba sëñ Bamba nekk Touba daanu leen dénoncé ñu noppi ak seen rajo yi ak seen télé yi nañu tëj seen gimiñ yi sëñ bamba ne touba dañoo war ni sëñ bamba nga touba waaye luy lore néewul touba ibra <laughs> wallaay wallaay euh, jërëjëf Père Seydou xam nga xam nga ci subaak léegi rajo yaa ngi wax di yàq sunu der te ñi ngi fagaru sëñ Muntaxa li mu wax moo dal suñu xel ñi ngi jox kàddu gi sëriñ Dan Mbàkke sëñ Mouhamadan mu Cheikh Abdoul Ahad yow la ñu bëgg nga ñëw fii jël kàddu gi sëñ Mouhamadan moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom la yow lu ñëw nga bëgg fi ñëw nga ñëw jël kàddu gi waaw sëñ Ibra balay sëñ dan ñëw dafa am ñu ñor sëriñ Basiru te di ay wóllëreem di ay xaritam mu leen di sant ci kanamu kilifaam yi di sëriñ Abdoul Ahad ambassadeur moom Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Mouhamadan mi baayam ak waajuram yi fi nekk yépp ak kilifaam yi fi nekk mu ngi leen di seereel ak cant gu mu beral Abdoulaye Dia mum Serigne Omar Dia ak soxna Astou Dia mum alaaji Ibrahima Dia ma àndoon ak sëñ Gaawaan di Ablaye Dia Seniko day xaritam di wëllëreem di léppam te ku ne xam seen diggante mi ngi koy sant ci taxawaay bi ci bis bi di beral ak cant Moustapha Ndiaye di wëllëre Serigne Bass Serigne Abdoulaye Dia mook Abdoulaye Dia di benn ku ne xam na ne Moustapha Ndiaye waxal na boppam ni Serigne Bass sama bunt ci Touba mooy yow Serigne bas sama xarit ñépp ko xam muy yow ànd nañu këram Tiwaawoon mu jël ay teraanga yu bari ni Serigne Bass moo ko fa andi kon loolu sagal na yoonu murit fu nekk jëm ji wooteel Serigne Bara def ci ay millions ngir jëmmi maamam rek wanewul boppam waaye Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la wane kon sagal na maamam fu ne waaye sagal na boppam fu ne di sant bu baax Mame moor ja mi nga xam ni moo Abdoulaye Dia ñoo bokk ndey ak baay day wóllëreem di xaritam ja jëf ci bis bi jëf ju am solo waaye di sant Moustapha Dia Moustapha Dia moom itam day rakku Abdoulaye ja di wëlëre Serigne bas ndax Serigne Bass ñi ko yàlla binde du fakk jëf nu ko waay téye mu téye la noonu waaye nu ko waay def mu def la noonu Moustapha ja mi nga xam ni sëtub alaaji Ibrahima Diallo di borom déem ak njàpp ak daaru naim ñii ñenn ci daaru salaam tey jii jumaa ja nga xam ni Serigne Touba moom la njëkk a rëdd muy jumaay daaru salaam dëkk ba mu njëkk am ku ne gis na la fa Abdoulaye Dia def muy Sénico ak ay rakkam yépp mel ni mi ngi sant bu baax Mansour Ngom grave pip moom itam day kenn ci sëriñ Basiru di xaritam jàpp ci bis bi lu ñu gis lu bari ci ay affiche lu bari moo ci ànd ak sëriñ Bas te day rakkam di xaritam ñu yàgg ànd di sant bu baax far ba Ngom SA ba day kenn ci sëriñ Bas mën naa ni semaine bu nekk moo sëriñ Bas dinañ gise ñaari yoon wala ñetti yoon muy ab xaritam di frère am di léppam ak soxnaam si nga xam ni suñu papa alaaji Mansour Mbay moo jël loxo Adja dénk ko sëriñ Basiru muy Adja Mbay di jigéenam di xaritam di séq ak Serigne Bass nag lu ne ci teranga ci lu baax di sant bu baax daam jaane mi nga xam ni day kenn ci sëriñ Bassirou doomi alaaji njool jaane mi nga xamee ni moo nekk njaareem di sëtub sëriñ Mot Lamine Gueye di taalibeeb Serigne Mountakha di muri di sant Xaadim Ba Lok Afrique di doomi soxna Oumy Gueye Idrissa di kenn ci moom di sëtub alaaji Idrissa Gueye mi nga xam ni Serigne Bass da koy rendre hommage xaadim ba day rakkam di xaritam mi ngi koy beral ak cant ak yaayam ji toog di soxna ummi gay Idrissa di sant bu baax sëriñ daam jaane ndax day wëllëreem di xaritam bu baax waaye di beral cant Ablaye Dia ndax ku ne xam ne digganteem ak sëriñ Basiru Abdou Khadir euh, ku ne xam ne digganteem ak sëriñ Basiru moom sëriñ xaadim awa ba ndax benn la ñu ñoom ñaar mu mel ni kon ñu dugal sëriñ Mahmadan moom sëriñ Abdoulahad di xaritam di waajuram sëriñ daan sëriñ Bass nee na li nga def rëy na toog coordinateur ak Modou Bay Samb euh, oustaz Assane Diouf na wax ci nag ñiy rendre hommage ñëpp nag jaare ko ci président Sidy Lamine Niass groupe Walfadjri Seydou yow laa jox kàddu gi nag jërëjëf Cheikh Ibra Thioune Madior noo ngi ziar bu baax Cheikh Abdoulaye Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadilou noonu la ñuy ziare sëriñ Mahmadan Cheikh Abdou Lahat ak njaboot Cheikhul Khadim gi fi teew yëpp maa ngi ziar bu baax nag général Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni général Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Bachirou nag nee na naa ko santal ñoo xam ne dañuy kenn ci bis waaye dañoo jàpp ci bis bi lool nee na ki ci jiitu mooy le représentant du khalife général des mourides fii ci Ndakaaru alhaaji Mbacké fay mourid sadiq bi jàmbaaru Cheikh Mountakhal Bachir waaye nee na naa sant bu baax PDG Nassir Samb directeur général Africa Bloom loolu maa koy seeral Serigne Bassirou Mbacké moom sëñ Abdoul Khoudous Nasir day taalibe borom daaru bi ñu tuddee bis bi borom daaru Nasir dane waa daarul muxti yëpp maa warlu li ngeen war a xewloo addi seen borom daaru laa ko def président Nasir sëñ Bass nee na moo ngi lay sant waaye moo ngi lay gërëm ba pare nag nee na jàppale comité pilotage bi ci liggéey bi président Nasir Samb noo lay sant waaye noo lay gërëm nee na nag moo ngi sant ah Serigne Khadim Gueye jëwriñu alaaji baaru fii ci ndakaaru nee na xaritam la day kenn ci moom ak soxnaam soxna Sooda Badiane nee na moo ngi leen di sant bu baax a baax jàpp nañ ci bis bi waaye jàppale nañ ko nee na moo ngi sant bu baax le ministre Alioune Sarr ministre du tourisme nee na moo ngi koy sant noonu lay santee tamit le ministre Mansour Faye nee na moo koy sant bu baax waaye nag moo ngi sant tamit le ministre Oumar Youm sëriñ bi nee na moo ngi lay sant waaye moo ngi lay gërëm moo ngi sant bu baax soxna Binta Silla maam Binta Sall nee na moo ngi koy sant bu baax sant goo xam ne am na tàmbali waaye amul ak yem waay. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si a jot moo leen vidéo xam ne a xam nga xam